sama si yu dox bii moo ko def te booba mi ngi tolloo mi téeméeri kilomètre nga ñëw ci Mouhamadul Xaafis ci gànnaar nga jóge fa ñëw ci Cheikh Oumar Foutiyou ñëw ci baayam Alaaji Abdoulaye ñëw ci Alaaji Maalik demet bu ma lim ñu xàttal yi cheikh yi ku nekk ak say karaama ci la ñuy fanaan waaye li tax may wax ñëwut wala ñëwagul mooy ñooñu ñëpp gisaguma kenn wax ci li maam Khalifa wax maam Khalifa lu wax daf ne waaxidul wirdi min nii xasaa isihi kama ali cheikhi jaa al hubbihi minanu mu ne man xalifatul haadi Muhammad tàllal say loxo ñaan ma jot may la moo ku tàllal say loxo laaj ko Seydina Cheikh mu may la ko wax ju foora mu doon suñ bàyyi Cheikh ma mi nga xam ne tey moo nekk ci xilaafa ji bu maam xalifa daana ko fi yàlla yàggal dafa mas a dem Dakar ñu ne sëñ Abdoul Aziz Seng recommandé mu dem jaare ji mu nuyu ko mu ne ko sant wa mu ne ko ñaan mu ne ko kuy sa waajur mu ne ko xalifatul xaaj Muhammad mu ne ko toogal ci kaw lal bi bàyyi ci na ko déedéet ah bàyyi sa lal bi mu ne ko fi ngay mu toog ci lal bi dañu Abdoulaye Si tàllal loxo yi ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ma doon tijaan bàyyi Cheikh wax ne ko ah yow kat bàyyi ñëpp xam nañ ne tijaan nga mu fukk mbaxana bi ne ko tafli ko fii kon kooku xam na luy tijaan waaye xam na itam kuy xalifatul haaji Muhammad ki nga xam ne bi Ibnu Maayaa ba ŋàññee yoonu tijaan ci àddina ko muxtarikul jaani téere ba ñu jaarale ko gànnaar mu ñëw ndar dugg ci réew mi alaaji ahmed dem sookoon moo ci jot yër ko paasal téere bi li sa bor bi boo wàccee kiliyaan yi Kaolack demal Léona Niassène nga laaj Xalifatul Haaji Muhammad mu ne la maa ngi nii nga yëkkati téere bi jox ko mu yëkkati téere boobu jox ko sama maam Xalifa ne téere bi bu ma ko yaraan bëccëg bu guddi jotee ca wanag wala koy fanaanal man téere buy ŋàññi Cheikh lu fanaan sama ba téere ba pare mu xam lam ca def lépp mutong tuh, ko waaye nag dafa yang banyak jàng ba nekk yore Sias bi nga xam ne ci lañuy jàngalee ni man mari. Mune ne ku ma tontu bëgguma da ngaa saya saya ngaa bona saay lobo, saaga yooyu nena, boobu da nena, yàlla kondisi na beneen bi ci des mooy wesar dafa yomb comme mbind leetar déedéet da nga koy woy ba seet arur bi ndax baax na seet balaaga bi ndax baax na ndax naxwu bi baax na ma door yër boo ko defut danaa bind beneen téere xas la mu wër àddina ah kooku neexut a tontu te moom xalifa rabbi ibnu maayabu bii ngeen déggoon ñu teg ko qaalal ubaydiyul kawla xëyu muhammadu salilu abdillahi wa huwa yahmadu man xaftahu bi waadixil bayaani min bayni kullil biidi wa sulaani taxaddusan bi nixmatil wahaabi bi rahmi an fi munkirin murtaani loolu la tàmbalee téere bi téere bi rek jël ndax Cerno Bokar bu oore fonde doo sama maam xarit demee daf ne ko sa téere bi suma sëriñ Mouhamed Yahya da koo jàngale ci gànnaar maa ngi toog di wax njaam su xeebu sa ca Kaolack Abdoul Mouhamad di doomi Abdoulaye moo ne nangam ak nangam ay gànnaar ne wallaay la maamu ngay liggéey bi baax njaam benn jigéeni naar bu am alal alal mooy gàtt ak jileema nag bi dugg mu jóg ne Mouhamed Yahya naa la nag del ci palaatam mu xuus ci téere yi Numa Yaaba bi naar bi jógaat ñëw ba ci géew bi muy fecc daal di ne sëriñ bi bi laa yaa bëgg nag ma jox la nag rek nga wan ma mu ne ko borom téere bee la woon Seexu Tijaan waaye man wonu wolo kon kooku ñi ñoo mën a xam mustawaam fu mu toll niveau am waxuma njàngantu de waxuma liifan ci jàng ba jeexal téere yi moo mën a xam xalifatul haaji Muhammad fan la xam-xamam toll pour wilaayaam nag ku dem diwaan moom ku dem assemblée nationale wala nga dem Nations waaye yow foo mooy dayo nguur boo demee ba fa ñuy dogalee sa sees nekk fa te moom mu ne kañ la dem diwaan yor yoor lañ ko yóbbu diwaan mu def ay lawraadam moo pare ci néeg yaa fàttu ne gay yi ne ko cas mu ñëw fekk mbooloo mi ni trip ko mbooloo mi ñu réserve fa benn chaise ñu omat ko ba ci chaise bi mu toog ci jiitee jalsa bi ubbi carnet yër ba gis turam jox ko bindu bindukaay ne ko signé fi tey def nañ la mambal ci diwaan diwaanu awliya te maqaama ba ci yéegee dafa fort ndax maqaamam Abdul Malik la mooy ki nga xam ne moo topp ci xutbu bi bu xutbu bi am absenté moo koy remplacé ci maqaamu boobu la yéegee diwaan beneen bi ci def mooy karaama ñi mu àndal ñëpp da leen a sóob ci yàlla bañ nekk am na Baaji Baaji mi yaakaar naa sëñ Ahmed Babacar mos nga faa nekk waaw am na ku ko jiitu koo xam ne ci maam Alaaji la jàppoon tur yi gënoon a siiw mooy Mbuus Njaay waaye Moustapha la tudd bi mu gisee tus maam Alaaji mu ngoog yàlla yaayu jàmm bi maam alaaji fàddoo dafa ñëw ci sama maam xalifa mu yeesal ko mu jàpp moom kooka génn àddina maam xalifa dem taxawee ñu yóbbu ko rob ko maam xalifa di bi mu waaree ba ci digg bi mu dog waaree ñu ne état gëtt boo xam ne bu ko gën a neex daal di mu ne malaaka yërmande yi de sulli nañ Moustapha Ndiaye ña ngi ko yóbbu aljanna dem leen bu ngeen demee da ngeen fekk bàmmeel ba sulleeku nit ñi di bàyyi ba waare wa dem ci armée yi ñëw fekk ñu suñu bàmmeel kooku du kum neex nga def loolu du kum neex nga xam loolu du kum neex sa taalibe ñu defal ko loolu fii ci sama njaay bi ci mbaaju gi nga xam ne moo kaw la ko yaakaar naa ay 30 kilomètres lay mat loolu boo ci doon xuus xataa Kaolack gii tey ñi nga xam ne tey ñi ngi dëkkoon ak moom ku demee ni Baye Modou Guèye ak Baye Abou Guèye ñoo ko daan escorté ndax booba Kaolack amagut lampe mbedd yi dafa lëndëm tëru ñu koy jëlee ci kër bu mag gi ñu koy yóbbu ci zaawiye bi bu jullee géeyee ba pare ñoo am nag moom ba mu néegam ñu door a ñibbi ñooñu dalee na branché bañ fees dell ci yàlla Pape Oud na àddina ay at benn bés këram fees dell ak waa ñu ne lan ñu ne fam daan sangoo ca miir ba dafa feey ñu ne déedéet photo maam Alaaji ak maam Khalifa ak moom moom lañ dessiné ca ca biir ba te dessin bi du bind boo ñëwee da ngay gis jëmm yi rek waa Kaolack ñëpp fàq kër gi moo féetee jumaa ji penku moom jumaa ji tëli bi moo dox seen diggante ba police moo ñëw di kooku lu ko may loolu mu jëm buñ ko duwelaan ndox te wanagoo pour mu sangu bu ñëwee dañuy fekk bii junne yi di téye ci ndox mi loolu lu ko indi waa crédit foncier dañoo tabaxoon wàllu xarfu kër maam Khalifa nawet bi yàqu ñu ne dañuy jaay kër gi fayee ko seen bor yi Ibrahima Ndaw ñoom ci sama maam ne ko da jël avocat mu ne ko luy avocat mu ne koo xam ne da layal pour ñu annuler sa bor bi wala ñu wàññi ko ñu may la mu ngi ndig mu ne jël naa avocat bu mag bi booba ñoom euh, ñoom kableer ay tubaab ñu ngi mu ne ko ban la mu ne ko jël naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ci sax xasida naa bu fekkee ne kaw tey fi yonent yàlla Isa mooy fekk xullu mu wax loo ko kaawteef bi yonent bi mooy fekk aw werekaan mu ruloo ko buñ waxut duñ ko jaay kooku dem lekk non vie bi ma ni ko wax mu ni maa wax ay yonent bi day yooyu ki dinañ jaay këram bi ah góor boobu muy wax Modou Gueye ñëw ne ko sama kër gi titre foncier la kër gaa ngi nii man bu ma roñu indi oto mairie bi mu jël sa bagage yaa ngi ko waa kër yi nga toog sama maam ne waa kër yi kër ak Cheikh Tidiane la mu daal di jooy boobu tubaab yi dañu am doole kuñ tëkku nga tiit mu ne ko hee hee xemut noonu kaay mu ñëw mu ubbi benn batan ci armoire yi comme commode yi fi daan def téere yi ci ne ko lu nekk nii mu yónnu ne ko dara mu tëjaat ko wax ay baat yu gàtt ubbiyaat ko paquet yi dàqte ci suuf taalu paquet ci xaalis yi mu ne ko lii lan la Mamadou Gueye mu ne ko lii de xaalis la mu ne ko bu doon xaalis rek ma jot ko xanaa sa sa xel mi dal na mu ne ko dal na ñebe.